asalaamaaleykum yéen mbokki Sénégal yéen ñi nekk fii ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci diaspora bi te ñu leen di duppe euh, yéen ñi nekk ci biti te ñu leen di duppe waa jaspora maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci tuuram ak si santam euh, di leen ñaan ngeen may ma permission balaa may ñaan permission bi sax maa ngi jéggalu maa ngi leen di ñaan ni ma ko waxee permission pour mu mën a wax ak ki nga xam ni mooy sunu président Fall bees bi te ñu koy waxee ñu koy tuddee Basirou Diomaye Diakhar Faye nga xam ni nommé nañ ko euh, élire nañ ko fan yi passé rek le 24 mars 2024. bi ci ay élection yu mucc ayib yoo xam ne amul benn werante euh, excellence monsieur le président de la république Bassirou jomaay jaxeer Faye maa ngi lay nuyu ci sa tuur ak ci sa sant di la jox sa cër bi yëpp di la jox sa wàccuwaay euh, di la sargal ci ni nga xam ni fale nañ la ko nga nekk ci bopp réew mi ci am na mi rafet anam boo xam ne amul benn werante li tax nag ma yëkkati kàddu yi di ko jëmale ci yow du càgga ni dama la yeb de déedéet dama la bugg jàppale rek te ma war la jàppale li la sénégalais yëpp war a jàppale pour que yéen bi nga xam ni teg nañu ko mu oyof ci yow nga am ci ndam boo xam ne du am benn werante euh, suba nag le 2 avril nga war a jot lenge yi ci loxo ku ñuy wax Macky Sall parce que mu doxal loo xam ne man fi mu toll fi sax di ko tuddee président Macky Sall sax daf may diis donc suba dina la jëbal lenge te bu la jëbale lëngee rek bu boobaa am nga sañ-sañ bi nga xam ne moom la la constitution jox maanaam nga yor réew mi ci anam bi nga xam ni moom la sarto nga xam ne moom la constitution wax moom la loi yi wax moom la règlement yi wax ñun nag sénégalais yëpp nga xam ni fal nañ la ñu ngi lay ñaanal wax dëgg yàlla yéen di oyof ci yow lool lool lool lool lool te nga am si ndam boo xam ne du tas yaakaar waaye nag dafa am loo xam ne nag dañ ko seetlu te yow sa wàllu bopp xam naa ni seetlu nga ko mooy ki nga xam ne moo lay jébbal lenge muy président Macky Sall moom ak région wax dëgg yàlla dafa mel ni te dafa leer sax ci bopp nit ñi mooy fi nga nekk yéenewuñu la ko lenge yooyu ñu la jox ñoom aussi yéenewuñu la ko te bu ñu sañoon aussi li nga xam ne moom mooy sa magistère maanaam juróom at yi nga xam ne moo la desee moom nga war a liggéey ñoom fi mu toll bu ñu sañoon nga laaj ji te ñu ngi koy commencé ci fan yi ñu ngi def lu tubaab di wax sabotage dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg si wàllu gu nekk si fànn gu nekk Macky mu ngi koy def ay directeurs généraux ñu ngi koy def parce que directeur général parce que ba léegi moom mooy président te lépp loo xam ne directeur général def na ko rek def ci ànd fekk ni sax mën nañ wax non seulement def ci ànd sax xëy na moom moo leen jox ndigal pour ñu def ko loolu nag liñ ci jublu ñu ngi def ay recrutement yu yu jéggi dayoo ñu ngi yokk ay indemnité ñu ngi yokk ay salaire euh, lu nekk ñu ngi koy def ci biir seen service yooyu ci biir palais de la république ñu ngi mayee fii ñu ngi décorer gis nga fan yi muy décorer ñoo xam ne tekkuñu dara tekkuñu dara liggéeyalu ñu réew bi kenn xamu sax foofu n'est-ce lu dul ñenn sax si ay caaxaan loolu yëpp la benn lenn rek si jublu mooy yow boo xasee ba jël la léegi da ngay jànkonteel ay jafe-jafe ay difficulté yoo xam ne xëy na sax yow programme bi nga tëraloon pour réew mi commencé Euh, di suqaliku sax doo ko tal nga nekk fi di war a régler ay conflits sociaux ay conflits yoo xam ne ay liggéeykat la ñooy réclamer seen droit n'est-ce pas euh, ay liggéeykat la xam ne xëy na bu leen bëgg a dàq ñu ne war leen ñu dàq et cetera donc yooyu rek la bëgg indi indi jafe-jafe aussi si koomu réew mi parce que yooyu muy def yëpp dafa ànd ak dépense yoo xam ne xëy na budget bi attanu ko te prévoiruñu ko loolu yëpp lu mu si jublu mooy yow président Bassirou Diomaye Diakhar Faye boo toogee rek nga tal leneen lu dul li nga xam ne loolu moo tax sénégalais yi fal la waaw donc ñu jàpp ni rek que président de la république bi ni ma ko yàggee wax man te ma jël ci sama responsabilité mooy koo xam ne wax dëgg yàlla dafa soxor waaw euh, mooy koo xam ne fi mu nekk fii dafa mere sénégalais ci li nga xam ne faluñu ko parce que moom dafa yaakaaroon ni troisième mandat dafay yomb ci moom dafay ñëw rek toog di doxal mais malheureusement sénégalais ak seen fulla ak seen fayda ñu ne loolu du fi amee moo tax it yow sa wàllu bopp nga xam ni yow la ñu dénk réew mi nga nga baal ma de waaye aussi nga matale sa fulla ak sa fayda ba nga xam ni kii nga xam ne wóor na la kii yéenewu a jàmm nga bañ ko may jàmm mooy lan mooy boo xase ba jot léegi da ngay jël décret boo xam ne képp koo xam ne responsable nga woon fii nga bañ a génn réew mi nga joxe instruction ci frontière terrestre aérien maritime fu nekk ñu bloqué ko bu kenn du génn nga nangu passeport yëpp passeport diplomatique yi n'est-ce pas ba nga xam ni kenn ci ñoom du génn surtout moom moom ci boppam waaw mu toogoogum fii ñu seet lu bëri yoo xam ne dañ ko war a leeral te moom dañ ne woon buy dugg dafay def prestation de serment buy génne dafa war a de prestation de serment donc waroo ko bàyyi mu génne réew mi te deful prestation de serment te li nga xam ne moom nga war a jàpp kii boo ko bàyyee mu génn moom ak ay ñoom ay milliardaire la ñu bitim réew la ñuy toog commencé léegi di jëm a réew mi di la indil ay problème di la indil ay jafe-jafe yoo xam ne fi mu toll fi liggéey bi nga xam ni xëy na moom nga bëgg a teg fii ci raay yi pour euh, réew mi soxole ko dootoo dootoo ko tal

jàppal ni sénégalais yëpp dogu nañ ci loolu mais am na loo xam ne nag yow yaa ko mën parce que yow yaa am sañ-sañ boobu baat boobu peuple bi moo la ko jox mooy am na yenn mesures yoo xam ne yow rek yaa ko mën a jël moo tax ah si sama tour ak ma yaakaar aussi si tour sénégalais yi nga xam ne bëgg nañu réew mi dox bëgg nañu sa réussite nga jël décret boo xam ne da ngay tere Macky Sall ak yi ñoñom ñu génne réew mi mooy décret d'interdiction de sortie du territoire te nga joxe ndigal gendarmerie police douane eaux et forêt vraiment ñu taxaw ci bëgg nga xam ni ñoom ñëpp dinañ toog fi ñu leen def enquête xool yenn situation yi c'est képp koo xam ne da nga def faute boo xam ne dafa waroon dugal kaso ñu dugal la kaso parce que aussi sunu alal dañ si war a jot képp koo xam ne mën nañu récupérer alal bi ci moom ñu récupérer ko waaw donc vraiment xëy na du ma wax yenn tuur yi waaye nag yow sa bopp yaa ko gën a xam yaa ma ko gën a xam yaa ko gën a xam Sénégal yi parce que da ngay koo xam ne am nga compétence bi yàgg nga gëstu yow ak sa ñuy ñoon waa Pastef ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen di jàppale donc li ñuy ñaan yàlla mooy effectivement nga taxaw ci loolu warnal fulla ak fayda bu moo sëkk ñi nga xam ne non noonu lañu te war na nañ say noonu lañu wax dëgg yàlla ñu toog ci biir réew mi ñu defante ak ñoom monsieur le président kaddu gi dëgër na waaye ñu defante ak ñoom jërëjëf jërëjëf di la ñaanal yàlla yàlla may la ndam.